bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin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 ñiy bàyyi xel almisbaax te nekk ci biir réew mi ñiy bàyyi xel almisbaax nekk bitim réew ñiy bàyyi xel almisbaax te waxtu wi teel ci ñoom waaye léeg-léeg mbokk yi def ko ay audio mu dox ba agsi ci ñoom ñoom itam ñu jàllale waat ko yal na yàlla fay leen yool boobu waaye yal nañ ci bokk jariñu ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaare bu baax ñoo ngi leen di baalo àq di leen baal di ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala mu boole ju jéggal. di ko ñaan mu nangul ñu sunuy jaamu jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ñoo ngi bàyyi xel ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi ci lu feeñ di bàyyi xel jotaay bi ci lu nëbb di ñaan borom bi mu jàppale leen koo xam ne boo amee doole lislaam am doole yal na la yàlla may doole te yokku la ko te aar la te sàmm la koo xam ne boo amee doole xeexe lislaam yal na la yàlla soppi ba sam xel xeex lislaam bañ cee nekk ndax doo ci amee ndam borom bi nee na ñi nga xam ne dañuy dépenser seen alal ndax xeex lislaam ak xeex yoor woote bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam danañ dépenser seen alal ba mu jeex takk ñu perte te du tee lislaam des fi du tee mu des fi di gën di yokku léeg-léeg nag loolu nit def ko directement xeex lislaam te du ko di ko yëg nga xam ne moo ko tey léeg-léeg mu def ko indirectement maanaam xeex ko te yëgu ko ki nga xamante ne day jàppale lislaam léeg sax mu di ko def te yëgul ne mi ngi koy jàppale bu baax maanaam tey fekk benn émission diine buy jàll mu jël ko ne maako ko sponsorisé ñi nga xamante ne noonu la ko suñu jur wayjur alaaji sëriñ fekk di defee bu C3S nga xam ne da ngay jàpp bu ci kanamee tuuti waxtaanu fajaru oustaz Alioune Sall laataa muy tàmbali ñi wax ne moo leen koy may nga xam ne di la wóor te mooy bu doon publicité la wala leneen ak leneen mën nañuy taamu barab yu bari waaye bëgg a jàppale lislaam ak teg seen loxo ci daawa bi ci façon biñ jàpp ne moom lañ ci mën a jàppe moo leen di yóbbu ci loolu loolu nag nit la ko maanaam képp koo xam ne yaa ngi def noonu dafa doon koo xamante ne mi ngi dimbali lislaam mi ngi jàpp ci liggéey bi te xëy na du jàpp goo xamante ne jàpp gu direct la ba ko xool gis ko waaye fekk li tax nit ñi di xool bay seen yëpp yu mel noonu nekk ci suuf di ko xambu yal na ko yàlla barkeelal suqalil ko ab liggéeyam musal ko ci mépp ndok defal ko njabootam ak képp koo xamante ne yaa ngi ci yoonu lislaam tey góor góorlu te di ko def noonu nga xam ne moom la koy defee noonu la ñuy ñaanale bu baax soppee Al Misbah yi ñuy bàyyi xel ñëpp ndax daara moom ñëpp a yam ndax li ñuy xool di ko gis ci nit mooy pas-pas bu rafet waaye mooy ànd bu rafet ndax njariñi àdduna yi dafa bari taw wuute am na koo xamante ne mën na laa jox lu la jariñ am koo xam ne dalay wax lu la jariñ am koo xam ne dalay wétli am koo xam ne day ànd ak yow ci la ngay def looloo tax suñu bindu samedi yi tomb biñ ci jëloon di ci waxtaane te mooy fafirru ilallahi maanaam daw leen jëm ci yàlla wala nañ daw dellu ci borom bi subhaanahu wa taala te gaaw tey di ci suñ ñaareelu bind maa ngi la doon wax ne dellu ci yàlla moom buñ ko waxee la ci jiitu mooy tuub ndax baatu tuub taaba la muy tekki mooy dellu na ma la woon kon buñ koy waxtaanee liñ njëkk a wax mooy taxaw ci tuub ak yi nga xam ne moo ci aju ñëwoon naa ba ak fi ci solo si nga xam ne moom la tuub am ak ni borom bi subxanahu wa taala taxawee temm ngir jéggal ki nga xam ne dafa fas yéenee tuub ma nettali woon la xadis bi nga xam ne Abu Saïdin al Qudri radiallahu anhu moo ko nettali jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yonent bi nee na ci ñi leen jiitu woon da caa amoon ku rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent jaaroon naa ci waaye lañu ca taxoon a jóg taxaw ca mooy ba mu maanaam ba mu jëlee ak dogu ci fas yéenee dem tuubi jutta àgg ca dëkk bañ ko digal ne na dem fekk fa nit ñu baax mu ànd ñoom jaamu yàlla te tuub mu faatu ca yoon wi borom bi subxanahu wa taala daa yebal malaayika ñu ñëw tàbbal ko ci yërmande yàlla ndax yéene ji mu amoon ci dem tuubi kon yow xëy na fi mu ne mën ngaa weesu yéene waaye mën ngaa xool li nga xam ne moo dox sa diggante nga jubóog sa borom subhaanahu wa taala te du noonu nga daal di koy bàyyi moo tax xul yaa ibaadiya allasina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah laa taqnatu min rahmatillah yàlla waxut yéen ñi nga xam ne da ngeen a def bàkkaar waaye yéen ñi nga xam ne dem ngeen ci bàkkaar ba yaakaar ne dootu leen baax dem ngeen ba yaakaar ne fi ngeen tollu ci tilim dootu leen baax borom bi nee na bu leen naagu bu leen jàpp mukk ne man seexlu naa leen man seexluwuma leen ni ngeen tilime noonu bëgg naa leen ba léegi yàlla nee na bëgg na leen ñëw leen moo tax bu fi nekk di eh, jël nit kalaase ko ba jàpp ne moom dootu baax am na ñoo xam ne fi mu bëgg nañoo ñëw waaye dañ leen bunt yi te nit moom moo mut bunt yi ba di ko tëj wala mu di ko bañ a tijji gëmal ne saa su nekk mën ngaa bokkaat ci groupe bi mën ngaa bokk ci jàmbaar yi man ngaa bokk ci li baax loolu mooy ak mujj rek mooy li am solo moo tax teey ci baax na moo tax alquranul karim ci suratul maida di wax naan afalaa yatuubuuna ila allahi wa yastaxfiruunahu wallahu xafurur rahim yàlla nee na mu ndax du ngeen tuub du ngeen dellu si ci man jéggulu ma te xam ne man ab jéggalekat laa xam ne man ak ab jéggalekat laa ñëwoon naa ci lu yaatoo yaatu ci suñu bind bi nga xamante ne moom lañ génnoon ca samedi jële te baamu waatoon ko ci ñaari samedi moom tuub moomu bu ma ci ñëwee di ko wax nga xamante ne moom laay njëkk a wax ci li ñuy delloo ci borom bi subxanahu wa taala mooy jaam bi day xam ne moom jaam la waaye daa mel ne ak dundam da ciy ànd ak di tooñ borom bi subxanahu wa taala di ko jéggulu di tooñ borom bi di ko jéggulu bu mu doon koo xam ne nag day tooñ tooñu tey wala mu xam ne lim nekk ay njuumte la ba noppi mu sax ci waxoon naa ne doomu aadama dañ koo bind muy ko matadi matadeem googu moo tax muy man di def bàkkaar nga xam ne loolu daa bokk ci nit waaye ak njàmbaar dëgg mooy dem ba xam ne li ngay def jaaduwut nga seppi sab loxo tuub jàmbaar dëgg mooy koo xam ne day mën a tuub day mën a bàyyi li nga nekk mu neex ci yow te xamagoo ko da juum yaa ngi ci wala sax xam nga ko waaye bakkan dalaa man yaa ngi ci waaye bi nga demee ba am buntu baax sa conscience yow ñu wax la ndax nag léegi dara da lay téye ndax complexe moo lay téye wala bànneexub kese moo lay téye wala da ngaa rusa ñëw ñu naan lay xanaa kii du woon ko woon démb moo lay téye déedéet foofu nag njàmbaar dëgg akuk mat mooy mën a xëy nag bàyyi la nga nekk gannaaw ba nga xamante ne neexul borom bi subxanahu wa taala loolu mooy tuub loolu mooy tuub. boo tuubee ba noppi nga bañ caa dellu wala ruddu la aadu lima lima nuhu anhu wa innahum la kaadibin waaye doon koo xamante ne da ngay mën a tuub yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na tuub lu baax la ndax ku tuub daa mel ne ku mës a def bàkkaar at taibu min a kaman la zanba la nee na koo xam ne daa tuub ay bàkkaaram mi ngi mel ne mës a def benn bàkkaar kon tuub tuub gu wér ci nit ñi delloo ci borom bi subhaanahu wa taala ci la bokk fa firru ilallah na nga xam ne tuub du ay baat yooy wax waaye pas-pas la bu nit di fas ci xolam boole ci ak jublu boole ci ak jublu nga xam ne la ciy jiitu mooy réccu réccu googu lim koy jural mooy mu xam ne lim nekkoon ak mooy yàlla la te fa mu koy jëme baaxut mu xam bon gam bon ak la ca nekk ci ay jafe-jafe mu seppi loxoom ba du ca dellu loolu mooy annadamu te mooy euh, rëccu rëccu rëccu mooy regretter ne li ma defoon moom dootuma ko defati mukk mukk mukk mukk nga xam ne ab xolam day nox noxi ci bu fàttalikoo lam doon def mu bàyyi ko waaw mu bàyyi ko léeg-léeg nit di tuub di jooy ndax mettit wum ciy am léeg-léeg nit di tuub di jooy ndax rus gum rus léeg-léeg nit di tuub di jooy ndax tiit gum tiit yépp a baax waaye kii tuub da caa bokk ci ya def mooy euh, mu rëccu at tawba waajiba min kulli zanbi fa in kaanat al mahsiya bayna al abd wa bayna allahi bi xaqi haadami fa wala fa lahaa salaasatu surut tuub boroom xam-xam yi dañ koy indi wax ñu bàkkaar bu ne nan lañ koy tuubee imaam nawawi rahimahullah nee na tuub lu war la ci bépp bakkaar nee na su fekkee tooñ gi dafa dox diggante jaam bi ak boroomam da koy tuub tuubug bàyyi ko tuubug rëccu ko tuubu bañati caa dellu bokkut ak bu doxut bu doxee digganteem ak moroomum nitam bokkut ak boobu boobu day am ñetti sart yoo xam ne mënu caa ñàkk bi dox digganteem ak boroomam ñett yii mooy ci mënta ñàkk mooy mu bàyyi bàkkaar bi kenn du ne ci ak mooy yàlla ba noppi di tuub maanaam ne ci digg bàkkaar bi di ko def ba pare naan tuub naa ah yàlla de moo moo ñuy jéggal rek yow moom jéggaloo di yaa ngi ci ba noppi di ko def waaye tuub te ko yéenee bàyyi nga xam ne bu subaa nga delluwaat ca loolu du ak tuub kon kii tuub ba ca jiitu an yaqla àndil mahfiya mooy day summeeku ci mooy yàlla gi da ciy génn ba set wecc wecc wecc wecc loolaay la ci jiitu mooy dangay bàyyi da nga naan banaa ñi ne lu tax nga ne dafa neexut yàlla ok kon da ngay da ngay siggi ca loola bañati koo def waaw ah, bàkkaar bu man di doon rek ñi bañ a tudd benn bàkkaar parce que bàkkaar rafetul bu ñaareel bi mooy réccu réccu jëf ji nga xam ne moom moom la doon jëf mu réccu ko gannaaw bi mu ko bàyyee day réccu lu tax ma ko doon def tey nit ki bu defee dara am ci njuumte day réccu lu tax mu ko doon def réccu mooy regretté ko maanaam lii daal neexut ci yow bu tey doon démb doo ko defaat moo tax Sëriñ Suwaybu yal na ko yàlla fay ci njàngaleem mu am solo ma ne woon ne kii tuub daa wala mel ne kii joggi ci aw xal bi mu jógee ci xal wi xal wi lakk ko xam nga ne du ca joggiwaat tànk mukk ko tey loolu mooy rëccu maanaam mettitu lakk gaa ngi e, ñor-ñori ci tànk bi moo tax du ci joggiwaat kon dangay ngay teggi sa tànk ca saasa bi nga xamee ne dalaa lakk mooy kon nga bàyyi mooy yàlla gi ricculoo ko doon tegee waaye nag bañati ko caa teg mooy bu ñetteel bi mooy mu bañ caa dellu abadan ñett yi benn bu ci ñàkk ci ak tuub tuub gi du wér ñett yi bu ci ñàkk ci ak tuub tuub gi du wér loolu mooy bàkkaar bi ndox diggante nit ci ak boroomam moo xam da doon jëfandikoo ndox moomu di tàqale nit ak sagoom wala da lekk alal ju moomut wala da doon wax lu du dëgg walla daa sàggane woon julli wala da doon foye yàllaa ko yonentam wala dafa yëg ne def na ay bakkaar yu ndox digganteem ak boroomam moom xam na ko mu bëggoo tuub li muy njëkk a def bu mu ci man doon mu bàyyi ko ca saasa waaw su fekkee da daan julli ci waxtu wi mu bëgg a tuub da daan léegi fas naa yéene waxtu wu jot ma ma julli nga xamante ne lu lu mu jàppati ba julli jot lu dul ngànt lu ko lislaam may da koy def dem julli ji bu dee da daan jëfandikoo ndox muñ tere du def bu bu bu mandité gi reesee mu ne tuub naa waaye du jël benn décision du tee ñam daan fréquenté lay fréquenté fam daan toog lay toog nam ko daan defee lay defe kon mu bàyyi ko day jafe kon day dëpp ñett yooyu faw ñetti yëpp daje ak tuub dóor wér fa firru ilallah beneen bi ci topp nag mooy su fekkee dafa dox bàkkaar bi digganteem ak doomu aadama ne moom ndax léeg-léeg yi ëpp ci yi ñuy sonal ak i bàkkaar yi ñuy yàggal ëllëg yowmal xiyaam yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci mooy tooñaange yi dox ci suñ diggante waaw suñ diggante moom li ciy dox daa bari lool bu boobaa nag danañ ci dolli bu ko ñeenteel bi ko ñeenteel mooy mu setal boppam ci àq jëm ameel moroomam su fekkee alal la day dem fay ko su fekkee lu mu ko yàqaloon la day dem ba ca moom mu jéggulu ko maanaam li dox diggante nit ak nit nit du toog ne tuub naa ko ay waay yàlla yàlla na mu jéggal li ma def diw yàlla moom baax na lool mën na ko nag ndax yowmal xiyaam dana bëkki nit ba ne ku mu ameel bor ñëwal ma fay la waaye maandoom gi it da cay aju nag àq boo ameel nit da ko fay moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax saxaaba yi ni leen ndax xam ngeen kan mooy muflis mooy ku perte ku kutusu ndax xam ngeen mooy kan ñu ne ko ah ki kutusu de mooy bu doon commerçant la ku xëy yurut benn dërëm yurut dara maanaam mu jeexal takk lam doon jaay lañ ko lam doon jënd ak lépp seey kookoy ku kutusu ci noonu lañ ko déggee yonent bi ne leen déedéet àdduna moom daanaka kutus sax amu fi bu nit nekkee di dund ne leen ku kutusu mooy ku ñëw yow mal ak bar indi julli yu bari ñu wàccee conteneur julleem mi mu nekk ay jal conteneur kooram yi nekk ay jal nga xam ne moom daa jullee julli ba mel ne julli kaata koor gi du dog maanaam lim jaamu yàlla ab aabid la woon boo xam ne jéggi na dayoo waaye nag ni mu mënoon a jullee noonu la mënoon a yàqe der maanaam bu julli jotee mu ñëw kàbbar julli waaye bu sëlmalee ci deri nit ñi lay nekk ba julli jotaat moom daal julli gi doxul digganteem ak def dara lu bon ma ngay xaste ñii alal jàmbur jum jekku lekk ku mën a yàq sab der yàq sab der ku mën a tuur dereetam tuur dereetam nee na ëllëg yowmal xiyaam mu ñëw nag ñu juugal ko tiyaabaam yu bari yooyu waaye nag ñim ameel àq itam nekku rang di fayeeku seeni àq ñuy jël ca tiyaaba yee di leen fayee ñuy fayeeku léeg-léeg nit ñëw ne kii kat jëwoon na ma bi sàngam moo yàqoon sama der ci bureau ba wax ma nàngam ak nangam ñu jël ca julli jox ko ba julli ya jeex te ñam ameeloon ay àq jeexut ñuy jël bon boni ñam jëwoon di ko jox ba mujj na jëfam yu xam ya tolloon jëfam yu bon ya toll na noonu ba ëpp ko yonent bi alayhi salaatu nee na kooku mooy ki perte dëggantaan moo tax àq yi dox ci suñ diggante na nga ko teel a summi fii sa kemtalaayal kàttan bul ko xeeb bul ko xeeb àq kenn du ko xeeb su fekkee alal la na ko fay am na ñoo xam ne li ñu yor ciy bor ñoom ci seen bopp sax xalaatuñ fuñ ko faree te ba léegi ñu ngi leb yàlla xam na ko ñu ngi leb loo xam ne yaakaaruñ fuñ ko fayee parce que bu ñuy leb duñ am yéenee fay ba noppi dañoo jàpp ne dañoo yeewu ñoom dañoo jàpp ne yeewu dëgg mooy man a leb di dóor rek leb kii leb kee bu la kii taxawoo nga dóor ko fii nga xam ne numéro téléphone bu fikk sax amoo ko bu sa téléphone bi sonné sa fi luy tëf tëfi ak yooyu baaxut moo tax bu dee alal la danga koy delloo kala ko ka ko amee loon tuub moom ci wàllu alal mooy bu dee da ngaa yor alalu te joxu ko jëloo ko ci teeyu bakkanam mayu la ko liggéeyoo mu fay la ko lébalu la ko yooyu bu boobaa da koy fay waaye àq la joo xam ne danga nga koo amee da koy fay ba noppi jéggulu ko bu dee mi ngi dund da ngay dem fay ko ko su fekkee dafa faatu nga fay ko ña ko war a donn su fekkee gisatoo ko nga saraxe ko te yéene ko yool bi bu dee àq yeneen nit noonu lañ koy delloo loolu mooy bu ñeenteel bi nga xam ne mooy fekk fi ñett yi ma njëkk a wax ci bàyyi mooy yàlla gi waaye rëccu lu tax nga ko doon def yéene ne dootoo ci dellu bu dee sa diggante nit la nga delloo ko àq yi nga xam ne moo doxoon ci seen diggante nga am oyof gu toll ne ñëw ba ci moom ne ko maa ngi lay jéggalu waaw yow kat liñ jote wax digg yàlla xool naa ko ba xool ko waaye xam naa ne maa la tooñ xam naa ne maa la tooñ wax xam na waxfir lana warhamna anta mawlaana na alal alxawmi alkaafiriin borom bi subhaanahu wa taala moom la ñaan njéggal moo tax ci alxuraan mu indil ñu ay ñaan yu tegu wax fu an naa mooy fii maa baynaka fii maa baynanaa wa baynaka mimma tuallimuhu min taqsirina wa zalalina boo naan yàlla yal na nga yal na nga ñu jéggal maanaam nga jëllaleel ñu waaw maa ngi lay ñaan ñoo ngi lay ñaan yàlla nga jëllale liñ lay def mooy li dox suñ digganteek moom ci ay àq yuñ war a matal te matadik doomu aadama tax mënuñ koo matal wala lañu ca war a defuñ ko nga ñaan borom bi mu jëllale ko ndeysaan wax fir la naa nag mooy li dox suñ diggante ak suñ moroomi jaam ñi waaw wala li dox diggante borom bi ak jaam ñi ba tey day dugg ci loolu war xam naa moom itam day dugg ci loolu mooy borom bi subxanahu wa taala kon dangay ngay gis ne saa yu ne yaa ngi koy ñaan njéggal waaye yaa ngi koy ñaan mu dimbali la nga mucc ci nit ñi nga xamante ne ay tooñkat lañ te mooy ñi nga xam ne ay suulkati jëf lañ yàlla nañ ci yàlla musal nee na. walladina ida faalu faishatan aw zalamuu anfusahum zakaru llaha fastaxfaru li zunubihim wa man yaxfiru zunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wahum yaalamuun yàlla nee na gaa ñi nga xam ne buñ defee bàkkaar buñ defee njombuteef bàkkaar aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp fàttaliku yàlla ni groupe tuub seeni bàkkaar ndax xam nañ ne man yàlla man rek maa mën a baale ay bàkkaar ñoom du ñuur ci seen jëf jooju sax ca te fekk xam nañ ko yàlla nee na gaa yooyu ñoom seenu fay ëllëg maxfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahti al anhaaru xaalidina fiha wa nihma ajrul aamilin yàlla nañ ko yàlla defal nee na tuubkat yooyu nga xam ne buñ defee bàkkaar dellu si ne yàlla jéggal ñu seenu pay ëllëg yowmal xiyaam mooy aljanna mooy aljanna ja nga xam ne xéewal yaa ngi fay gallaajoo ma nga fay bari lool nee na fa la ñuy sax ñii ñoo baaxuk fay walladina isaa faalu faisatan aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastaxfaru li sunubihim da nga ciy dégge ne ki nga xam ne dafa nekk ci bàkkaar gaaw dem tuubi gaaw dem toppi bi tawba wal istixfaar da nga ciy dégg ne abi hurayrat radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee nit dana def bàkkaar wax borom bi def naa bàkkaar te xam nga ko maa ngi lay ñaan nga jéggal ma borom bi subhaanahu wa taala ne ko abdi amala zanban fa allima anna lahu rabba yaxfiru zanb wa yaqus bi xat xafartu li abdi allahu akbar nee na jaam bi dana def bàkkaar ne suñ borom xam nga ne def naa bàkkaar bu wér waaye sama mata dong nga tax ma def ko maa ngi lay ñaan nga jéggal ma daal di tuub borom bi ne sama jaam bi def na bàkkaar waaye xam na ne maa ko moom allahu akbar bi mu ko defee ba noppi xam na ne man maa ko moom maay boromam mu jéggalu ma ma jéggal ko mu jéggalu ma moo tax baal naa ko baal naa ko allahu akbar nit ki day xam ne beneen buur buy jéggalee nekku fi bu dul yàlla keneen koy làqu ku dul yàlla nekku fi waaw koo fi làqu ku dul yàlla bu soobut borom bi subhaanahu wa taala mu boole leen yéen ñaar duma loolu mooy eh, régalam ci kaw suuf waaye nag boo làqoo ci moom fekk gaa yu baax ya làqu ci moom nga ànd ak ñoom làqu ci borom bi subhaanahu wa taala waaw kay noonu la fekk gaa yu baax yi nga xam ne naw nga leen fañ teg seen tànk ba wéetal borom bi nga teg fa sa tànk ngeen ànd làqu ci borom bi subhaanahu wa taala mu boole leen teral waaye yàlla moom ragalut kenn waaye nag joxee na ay sañ-sañ maye na ay daraja te rem yi tolloowut kon jéggulu borom bi subhaanahu wa taala benn la ci bind yooyu nga xamante ne mat naa bàyyi xel moo tax iblis ndeysaan yaa rabbi wa izzati wa izzatika la azala axwi bani aadama maa dumtu arwaahum fi jasadihim iblis dane woon borom bi subhaanahu wa taala yàlla maa ngi giñ ci sa màggaay geeg sa tedd nga gi duma dañ mukk di jéem a bewloo doomu aadama yi li feeg seen ruu yaa ngi ci seen yaram yi waaw li feeg seen ruuyaa ci seen yaram yi ma des fi di leen di di leen di leen di leen bewloo di leen pousser ci ñu def ay bakkaar di leen pousser ci ñu juum loolu suma liggéey la du ma dañ du ma du ma son du ma tàyyi damay wéy di ci nekk ndeysaan borom bi subhaanahu wa laa ne ko du ma dañ mukk di leen jéggal du ma dañ mukk di leen jéggal li feeg ñi ngi may jéggalu léegi yaa ngi fi iblis ngi bëreeg yow nee na moom champion la bu sampum dëndëm ne dalay juumloo juumloo na la amul problème loolu yëfi nit la waaye nag amal ngor gu toll ne daw dellu ci yàlla ne ko jéggalu si naa mu ne Iblis lu ma la waxoon ne naa la ñoom boo fexee ba ñu drapé it bu seen xel dellusee see rek ñu ñëwaat ci yow waaw wa innahum wa in azawka yaa ahad li xaflatin lam yusriku bika ahad wa abdaanuhum laa taqdiru ala balaika li duxfin yasharu ndax lan xulubuhum laysa tamilu abada ila siwaaka min huna ila xada Sëriñ Tuubaa nee na borom bi subhaanahu wa taala jaam ñi de mën nañ lay moy mën nañoo tooñ mën nañoo def bàkkaar waaye li ma xam te xam ko mooy bokkaale wuñ laa kenn li ñuy def même bu nuroo bokkaale xam nañ yow dongu yaa yàlla te xam nga ne xanaa ñun nag mm, lu ñu sàggan sàggan ak li ñuy def lu mu nuru nuru bokkaale xam nañ ne yàlla dong mooy yàlla ndax kenn ku nekk bis dana ñëw mu wéet ak yow jaar yow ci contexte yoo xam ne ci àdduna loo sàggan sàggan sax da ngay toog fa nga toog naan ci yàlla wala ñu ne la bàyyee naa kook yàlla moo tax mu ne ko nag ñoom buñ la dee tooñ it seenu yaram attanul mbugal yi ngi lay teg seeni cër mën naa juum ci bañ laa topp waaye seen xol yaa ko fees dell ndeysaan boobu mag ñuy pelee del borom beeku ci jiitu ndax moo wax iblis ne ko jéem leen a juumloo jéem leen a gàllankoor te kemt kàttan defal ba sonn waaye nag maa ngi fi duma dañ mukk di leen jéggal wa man yaxfiru dunuba illa yàlla nee na kan moo mën a baale bàkkaar ku dul man laa yaxfiruha ahadan siwaa yàlla kenn mënta baale bàkkaar ku dul yow nee na pare naa nag pour di jéggale walam yusirru ala fa faalu wa hum yaalamuun kon tuub ay bàkkaar dellu ci borom bi subhanahu wa ci lu sore ak lu joge bañu sax ci ak mooy yàlla bañ caa nuur waaye nangoo summeeku ak dëpp loolu mooy li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala digle wa man ya'mal suu'an aw yaslim nafsa summa yastaxfirillaha yajidillaha xafuuran rahima ku def bàkkaar wala mu tooñ boppam daw jéggulu ji boroomam dana ko fa fekk mu nekk buur bu baax buur bu mën a jéggale buur bu tabe buur boo xamante ne nii laahi biir ak dugal la aljanna looloo ko gënal fuuf leneen lu nit mën a def yëfi boppam la kon fa firru ilallah yal nañu yàlla may ngërëmam yàlla nañu dimbali ci ñu man koo topp lépp luy tax ñu jubook moom yàlla nañu ci xiir tënkal ñu seytaane mi nga xam ne yitteem mooy juumloo doomu aadama léeg mu réussir ko ci wet yu bari waaye buñ fàttalikoo borom bi ak nim ñuy alawti ko ak temps bi ñu may ngir ñu mën a tuub ñu war a daw nag dellu siwaat ci moom ne ko yaa rabbi jéggal ñu yàlla nañu boole jéggal rabbana xfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa shabbit aqdamana wansurna ala alxawmi alkafirin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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu